loolu day yaa ngi fi nekk gaay am gaay am na koy bu ngeen di dégg dans les quinze tam léegi fi nekk tam ñaar nga doon fi concert ñoo fi joo ci daje gaay concert waaw ñaar la même alors kay waaw léegi nag jéem ñi nga xam ne ñoo xam ne dañuy taw la ngeen ngeen di seetaan dinañ seetaan taw la war a dugg ngeen ko yem ko bu ne léegi nag ngeen defoon seen appel. fan yii soo amee concert bi ñu tourné bi ñu tourné Kirib. ñu tourné fii Europe. waaw bu fees dell. moo ngi noonu. concert tourné mais pourquoi ñun mu ñoo encore fii nga man xam nga li ma mel mooy dama fee nekk.

yéen ñi nga xam ne yéen a am sama respect mais yéen daal respect yéen a joxe moom donc merci à vous. gars yi sama kàddu yi am sama waa sama sama daan buy joué son man je préfère bu dee ko war a doon yàlla naa ko wax dafa am benn manière boo xam ne bu may rab dafa xam ne moom doomu moo ko am te damaa gëm ne doomu mooy si mais bu gën a yàlla ndax day koy def leneen kii. nay gën a conscient nay wax ak nit ñi parce que loolu lu gën na mën la bu bi day ñëpp dëgg bi mu woyee ma ala jaxan ma sori naa tooy bi muy woy yan bi sallallahu alayhi wa sallam ku gëddee ku seen ak dal loolu mooy tool foofu te wax naa ko mais day ko def naa leen Ini. Masalah kita tunggu cek ada kalah di rakyat. Pembedam di banyak cek. Penjenau penjenau wek. Eh. Satu bapak jiwa set di merah. Jalan ke wincah memenikah di merah cek. Zul. Lima kalian dapat kau. Gelung isyak di banyak jauh. Bindu di tohal seifane.

legislators Yeah. Uh-huh. G, what's up? Yeah, galera passando. Galera, galera, galera, galera. G, MC DJ Calcer, liga aí, técnica do Cotini. Lá de Levamete, eu comi gamba de febre no city. De que sai lá na coia de uma kipi. Então lá na mulher, se der é tuki, teki, tereré, vai. Concert à s'accomplir. On a dit qu'il faut posséder aux ordres de dominer. Donc, on commence à t'aider. On tire notre humanité vers cette société égoïste. J'ai grandi, j'ai compris que l'on m'avait trop traumatisé. La flamme que j'ai brandie pour finir un incendie. J'arrive à Sando, par bande de ma boulaye. Pour mon tête à Sando, de ma boulaye. Face au milieu à des rêves, les yeux fermés se lèvent. On voit la vie en rêve. Yeah, MCG, une vie en rêve. What up? Hey, nagadal, nagadal, nagadal. Sumandahera ni freestyle ko today. Okay, ito fa tama ka usan si dulo ng bazaar. Nga, baka si di wala. Di na ang

waaw moo ngi noonu mais pourquoi ñun mënuñu am loolu fay gaay man xam nga dama li ma mett mooy dama fee nekk j' ai été le premier bi def mission hip hop ngaay la fenn maanaam def mission bi ma fi jëkk rek ngaay artistes yi ñun ngeen mu def leneen doole ñoom ñëpp am fi ñoom ñëpp moo ne seen bopp ñoom ñu nii war pas la nii dama ko daan sonal carrément mais dafa def ba dafa aay ndax loolu laa doon xaasi ñoom it ji bu bindee nga kontaan ndax li ñuy bind sax pour que li ngeen di Sénégal duñ bindee noonu wallahi azim duñu bindee noonu lii dañ ko dem ba commencé jóg ngeen raw ci raw ci raw jékki-jékki ngeen di seetaan di seetaan seen artiste ba diwaan bàyyi leen fa ba keneen keneen bàyyi leen fa mais neexul sport ñun bi ñuy ñëw fii di fi def démb ñenn ñi dañoo jàpp ne bu jëlee day gën a naaw mais mun ñoo dem gis affaire bi di wan seen loo xool si teneen ànd biir yéen nga xam ne yéen am sama respect mais yéen laa gis yéen a gëm di xool donc merci à vous gars yi sama pour tardé ah sama waa sama sama daanaan la buy joué son man je bu dee ma war a doon yàlla naa ko dafa am benn manière boo xam ne bu may rafetlu boo xam ne moom dong te damaa gëm ne loolu mooy islam mais bu guddaa yoon am day bëgg def leneen kii nay bind lu conscient nay wax ak nit a mën bu bindee yëpp daa koy bi muy woy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla dara ku gëddee mu seetam taw loolu mooy kon foofu te wax naa ko Mayday po kita tanan. Edi, kalau main sa puwe war. Iya, siap. Kalau ka, kini nama ya kuwa. Nama ya ke teklo. Kofi kuare. Jude ni cira purba. Ya, kalian, kalian, kalian. Nebu ni cira purba. Pasal apa nak? Gondrome, nebu ni cira dini mooy tax ñu gàdd mooy te du wax lu dul dal foofu damay ñëw may ay ci taaru bind bi tuuti bisimillah ma tàngoo rahman ar rahim Bismillah dem ci kaw mu musul ci ca seytaane ak ci bisimillah dem ci nit ñi jëlante xalima fa seene waxati yete si tur ñaari booma yëkkati soo dee daw respecté ba ak mère tax ñooy tax nga am référence ak repère bu dox gi la dem asaan looy dugg na leer waaju yi respecté leen yaay leen ñooy xeer parfois bu tusik seen mel ni lu tëyu parfois yoo ni soy wéet am benn goût parfois mën nga bañ a kiis tamp yi leen a seyoon mais di jëkk kaw yaay lamp yi kon bul xalaat sa doom ku bi say bër bro da gis gis na sori dina métti di nga gis lu ne mais donc woor yi paa ak mère bu leen fàttee fay boo yi waajal sa bopp ndax mission bi yaa ko war a yoon yoo ngi dafa gudd na da bëri kàmbu bay dem say ñi ji am ko rendement salaire pour départ zéro yeah di dugg si nag dal di di jox ma jox ma ji wa ji wa ji wa